dinañ daal di annuler boobu les listes loolu moo nekkoon li gënoon fas ci yéen ñu ko doon leen euh, dégtal ñu jox suñu invité ñàkkul kàddu yu mu ci bëgg sànni sànni. Mm-hmm. déglu nga li nga xam ni euh, quotidien yi moom la ñu xëyee lan moo ci sa gis-gis bu dee am na ci peut-être benn point wala info boo xam ni. Mm-hmm. moom nga bëgg a euh, def commentaire. Euh, waaw euh, li nga xam ne moom laay seetlu globalement loolu moom sama sama sama gis-gisu journaliste la euh, mooy ne boo ko seetloo une quotidien yëpp dañu ñëw trop ci politique bi li xew xëy na mooy actualité bi mais du bëri analyse daf aussi perspective xool. Euh, ci Sénégal yu mel nii bu ma see am loi yi lan la ci wax dëgg-dëgg. Mm. ak aussi doo gis aussi jafe-jafe yow euh, gox-goxaat yi maanaam les territoires les régions li nit ñi di dund dëgg-dëgg au-delà des faits divers euh, loolu moom gis naa ne suñu presse bi dañuy accentuer trop trop trop trop ci ci rivalité ak ci kujje entre nguur ak gouvernement ba dañuy fàtte parfois te loolu it bu ñu koy def on rend tellement compte dañuy joxe rek fee yi fee yi ñu permettre nit ñi ñu gën a comprendre. Euh, démarche yi dynamique yi euh, lan moo ci xew mais dañuy contenté wu trop di rapporter que les ak waxu nit ñi sànq moom ay analyse euh, profonde te je pense que loolu laa xam ne globalement buggoon naa ko jëf ci revue de truc en tant que nag ancien journaliste mooy wax ci loolu li ci des ci nga xam ne lan laa bëggoon taxaw mooy ci kaaw bi ngay wax léegi Kaolack affaire santé bi Euh, suñu état wu infrastructure sanitaire yi lay wane xam nga euh, wax nañ ne sage-femme bi nga xam ne dañ ko inculpé certainement dañ ko mettre en examen euh, bàyyi ko mu dem xëy na ñu àtte ko pour ba àtteem ñëw ñu ñëw gis nga waxoon naa ko fan yi ci ginnaaw ci kaawu astu astu soxna bi astu soxna gis nga li ko dal fële ca Louga maa ngi doon jàmbat naan ñun ñëpp ci Sénégal xam nañ jafe-jafe yu suñu infrastructure sanitaire yi nekk li la koy firndeel hôpital public bi surtout boo fa duggee dangay ngay dem rek nga dugg ci toilette yi boo duggee ci toilette yi état bu mu nekk moo lay renseigner ci fii naka la ñuy toppatoo doomu aadama yi fii ñëw euh, ñun ñëpp xam nañ ne dañu amuñu assez d'argent ñëpp xam nañ ne sage femme yi ak ak ak personnel de santé bi de manière générale amuñu assez de moyens boo xoolee aussi docteur yi nga xam ne ñoo war a toppatoo euh, wér gu yaramu doomu aadama yi amuñu matériel bu doy seen plateau technique yi dafa faible investir ñu dëgg-dëgg ci santé suñu mhm. investissement yi dañ ko jubleel ci leneen loolu nag lan la jur mooy que boo ñëwee malade bi bu ñëwee euh, da ngañ koy ay conditions yu doy waar lañ koy tertoo nit ñi euh, personnel de santé bi rapport bu ñu am ak ñi feebar xam nga da may wax ne nit feebar ñëw dugg si ci kër docteur docteur reetaanal ko dalal xelam loolu rek faj na 80 pour cent ci maladie waaye bu fekkee boo ñëwee appel nañ lay xool duñ sax wax ak yow wala buñ ñëwee taf taf ñu bindal la ordonnance sànni la nga dem boo amul ordonnance du la jëndal du la du ma faj soo jëndul léegi ticket duma la faj man sama ba mu wopp dal na ma nga accidenté yegg si ci hôpital ñu ne ana ticket bi amul xaalis amul ticket ñu bàyyi la fële euh, ngay ngay vider de ton sang loolu yëpp nit ñi sénégalais yëpp xam nañ ko képp kuy fréquenté hôpitaux yi xam na ko mais dañuy mel ni ñun loolu dafa banal heure bu ci jëyee amee jëye bu fës laay wax parce que bés bu nekk ay nit a ngi ciy dee te mhm. kenn yëgu ko. mais am yoo xam ni moom la ñu gën a médiatiser. moom voilà léegi bu amee nag. ñëpp peut-être aussi degré d'atrocité bi de drame bi lay mooy suñu quotidien Astou mooy suñu quotidien mooy quotidien wu sénégalais yu bëri traitement boobu la ñuy subir ci hôpitaux yi ñenn ñi kenn xamul mais duñ ci wax lu dul dañ koy jël traité ko comme fait divers comme si mën naa dama naan may parfois quelle hypocrisie ñun ñooy ban askan te li ma ci métti mooy. bu ci scandale amee ñu taxaw ci di ci wax di ci wax di ci wax di ci wax waaye bu ñu toogee tuuti rek beneen ñëw ñu fàtte bii dem ci beneen xam nga dañu jooy astu soxna. Mm-hmm. suñu ronkañ feragul ñu indil ñu kaawu bébé bële ci Kaolack. gis nga balaa ñu ciy nekkat une semaine deux semaines te bu amee li gën a graaw mooy état da ciy profito doo di di waaw di jël ay sanctions yu métti teg ko ci ñoo xam ne sans enquête ni rien day ut bouc émissaire day seet ko ko jiñ. ku ci gën a weex donc rek ñu jàpp ko teg ko yóbbu kaso atte nañ ko vilipande ko te xëy na addunaam yëpp sax mustamel noonu mais xëy na dafa tombe ci moom rek parce que système bi yëpp moo nërmeelu xam nga ñu jël ko toroxal ko parce que tey vous vous pensez ni ñu situé responsabilité bi euh, woon demee noonu. non loolu loolu kooku dañ ko sacrifié ñi ñu ci jàpp muy kaawu Astu Soxna comme muy kaawu bébé jaari yi la ca kaw la ñu ci téye dañ leen responsabilité par la boo xam ne bu tàmbalee ci aide soignant boobu ñuy wax wala mu tàmbali ci ci ci ci infirmier bi wala xam dafa war a remonter ba ministère de la santé parce que système bi yëpp ci kaw cat ba cat lépp moo am défaillance lépp moo am défaillance kooku aide soignant boobu ku ko formé ku ko autorisé mu nekk fa dafa war a yéeg. mais la qualité de l'accueil quand même hmm? euh, est-ce que ma ne la qualité de l'accueil quand même est-ce que loolu responsabilité euh, ministère la wala responsabilité ki nga xam ni moom mooy parce que euh, je pense que loolu kiiw personnel la c'est-à-dire benn conscience professionnelle la boo xamante ni ku ci nekk war ñu ko mën a am pour individuellement formation ak éducation ak yar gis nga doomu adama sans nit lépp loo xam ne dañ ko bëgg ci réew dañ ci yar nit ñi former leen ci di ci sanctionner ak di ñàkk a sanctionner en fonction de ça bu fekkee ne bés bu nekk yaa ngi koy def nga gis sa chef di ko def sa chef boo ko soxlaa boo ñëwee bureau di nga fa toog amul benn rigueur heure bu ko neex lay dugg heure bu ko neex lay génn yow tamit boo ñëwee yow ak malade bi noonu ngay comporté ko mm. comportement la de manière général ci suñu fonction publique bi buñ ko gëm mu jël ko di ko chargé nit ñi dëgg la ku ci nekk am nga sa éthique professionnelle boo xam ne ak sa bopp nga ni man lu bi yàqu-yàqu man dinaa sàmm sama digganteeg ni may doxal loolu d'accord mais dama ni buñ ñu bay sanctionner les responsabilités individuelles comme ci cas yu mel ni dañ ko war a dafa war a yéeg parce que du tax mu la problème bi bu ñu bëggee la problème bi di xew ci di feeñ parce que pour man c'est symptomatique d'un problème beaucoup plus profond d'un mal ko plus compliqué bu ñu ko bëggee régler alla fokk ñu dem ci cat ba cat analyser ko taxaw waxtaanee ko yow foog nga ne ñaari ci benn weer ci benn weer ñaari nit dee ci ay hôpitaux te amul benn responsabilité bu ministère bi jël kenn du ko ci tudd ma ci li ñu yëg mhm. parce que boo demee ci yenn gox-goxaan yi am na cas yu gën a compliqué kenn du ko wax kenn du ko lijjanti ci vois parce que xëy na ñii boo xoolee ñaari cas yi kenn ki ñoom ñaan ñëpp dañu am accès ci médias yi moo tax parce que gis nga papaay bébé jaar yi dafa waaxu génn dem seeti journalistes yi porte plainte parce que kooku am na benn euh, conscience xëy na ak benn ouverture d'esprit même na ñoo xam ne dañuy dem suul seen malade nëpp nëppal ne yàlla bëri na sutura ñu dem na bu ko kenn yëg parce que bëgg nañ sutural seen bopp bëgguñ seen naqar sax nañu yëg ko parce que noonu lañ leen yare mhm. mais yooyu dañu war a toog ñu waxtaanee ko mais bu ñu ko bëggee di traité comme fait divers jàpp aide soignant ba tëj wala ñu jàpp sage femme ba tëj ñu wax ne ñëpp ñoom la waaw lu tax mu tax comporté woon nii kii kañ dafa xamadi kii kañ dafa reew kii amul yërmande mais c'est beaucoup plus sérieux que ça. alors vous pensez pas que bien avant c'est-à-dire euh, aussitôt Euh, mbir moom di am l'affaire su Astou Sokhna dégg nañ njiitum réew mi euh, commencé woon quand même yëkkati kàddu ni euh, dañu bëgg képp koo xamante ni affecté nañ la ci ci yenn zone yi nga xam si assez reculé ñu bëri ñoo xamante ni dañuy am résistance wala dañuy dañuy bañ a dem foofu parce que xëy na fi ñu situation bi ni mu demee foofu dañ leen di teg ay daan wala ñu jéem leen teg ay mesures seen kaw ay sanctions tey est-ce que du nekku jàpp du ñu jàpp ni njiitum réew mi woon ci pas yi nga xamante ni tey moom moo doon mënee vers faire peut-être euh, amélioration condition wu euh, kii c'est-à-dire ku ci nekk ñu traité la ci ci ci benn traitement boo xamante ni dañ naa ñi nekk ci région yi ak fii ci biir euh, ci Dakar ñëpp ñoom ñoo yam même traitement. mais xam nga en fait loolu njiité réew mi bu koy wax sax wax la rek ci moom maanaam wax kese la mais traduire ci ay jëf gisuñu ko ci démarche am nekkut ci volonté politique am bu leer lu tax. bu fekkee da nga bëgg nit ñi euh, médecins yi ak yooyu ñu génne ci capital yi daw dem ci biir gox-goxaat yi da ngay njëkk créer condition yu ñu liggéeyee exercer seen profession de manière la plus professionnelle ci gox-goxaat yi yow bu fekkee ne tey jii professeur nga te bu fekkee dañ la affecté Kaolack boo fa demee amoo benn instrument benn matériel boo travaillé boo commandé yenn produits yi doo ci jot doo ko gis yenn outils yi amuloo ko da ngay dem doo épanouir professionnellement ci gox bi ñu sànni bu dee médecin nga aussi kazalika bu dee infirmier nga ba kazalika parce que Dakar la ñu concentré l'outil de travail li ci ëpp solo loolu mooy problème bi bu fekkee ne boo demee ci biir hôpitaux yi régionaux yi doo fa fekk da ngay soxla sax léeg-léeg sérum glucosé mu të te nga war a faj ay nit te mu wóor la ne boo nekkee principal wala nga nekk dante soo ko soxlaa c'est à portée de main boo soxlaa yenn produits yi tout est à te fële xoolal rek ni nga koy comprendre da ngay seet la ñeen ñi dem liggéey Maroc moo leen gënal parce que ils da am nañ fa man mus naa dégg benn médecin bu mag ci senegal mu ne moom léeg-léeg bu feebaree dafay dem Maroc ñu ne ko lu tax mu ne parce que ña fay faj samay étudiant lañ man maa leen formé fii ci euh, ci ci lycée ci ci ci ci université Cheikh Anta Diop de Dakar mais ñoom bu ñu demee seen dëkk ñoo ma ëpp matériel yu ñu liggéeyee. mu ne man maa leen formé mais ñoom ñoo ma ëpp matériel damay dem Maroc ñoom ñoo may faj parce que samay étudiant lañ léegi ñun naka lañ mën a amee université Dakar am faculté de médecine. mais c'est vice versa aussi parce que am na ñoo xamante ni ñi ngi jógee à l'étranger sont des gens yoo xam ne nekkuñu duñu ay sénégalais pourtant ñi ngi ñëw fii implanté wu pour des pour pour des pour leur travail. pour ut si xaalis pour faire de l'argent médecine chinoise ak lu nekk gis nga ko fi ñuy ubbi ay ay cliniques. à perte de vie ñuy gën di paj mi di gën di seer doomu baadoola du ci jot mais xoolal ci public bi parce que su may wax man service public bi moo tax may wax waxuma li ci privé bi parce que réew aussi bu ñu xool euh, loo xam ne rek ñëw installé sa yëf di exploité di am xaalis man loolu taxuma wax mais service public bi moo tax may wax encore une fois de plus damay taxaw toujours di samp ci inégi inéquité territoriale di am ci réew mi ba nga xam ne ñëpp a ngi dajaloo ñëw ci dakaar ñu bàyyi gox goxaat yi loolu mag bu ko Macky Sall bëggee faj day fexe.